jëmale ko ci monde sportif bi yëpp ni ko Mamadou ñaan waxee te kaddu googu du sama kaddu man kese kaddu ñu fi toog ñëpp la sànq bi muy wax le cerveau de la mairie l' intelligentsia de la mairie waroon na tudd aussi l' éminence grise de la mairie muy Gaël Niang ak ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi ànd ci liggéey bi vraiment ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. tey sama xol dafa sedd parce que dama gis waa bopp xalaat dama faa bokk ñoom buñ teewee rek Djidda Thiaroye Kaw teewul parce que marqué nañu histoire Djidda Thiaroye Kaw ci lu positif ba tey ñu ngi continuer di ko marqué ci fraternité ak ci solidarité te valeur yooyu mooy valeur sport sportivité fair play fraternité ak lépp li nga xam ne dafay fédéré grand jërëjëf ay exemple jëf ci Djidda Thiaroye Kaw tey nag Mamadou wax na ko dañu ànd ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci commune bi pour sargal la communauté sportive bu ñu ko waxee nag ñu bëri seen xel dafa yem ci football rek mais tey du football kese la ñuy jox wàccuwaayam dojo yi am nañ seen wàll école football yi je sais pas ndaxam nañ ci ñuy sargal tey mais seen wàll mi ngi ñëw parce que loolu mu wax mooy joyau boobu ñu def fii Moustalifa dañu bëgg fii ak luy toll ci ñetti semaine jàpp weer ñu ngi ñëw juróom te jour boobu noonu yéen sage yi ak ndaw ñi tànk yi yéenay nekk à l'honneur moo taxoon mu xalaat ne école football yi nañ leen bàyyi ba jour boobu ñu jox leen seen cër kon tey jox nañu ASC yi am nañ ci 21 jox nañu dojo yi jox nañ ñëpp ñi nga xamante ni si ay école football lañu jox nañu aussi ñi nga xamante ni si ñoom ñëpp ñu ngi yëngatu ci wàllu sport tey tamit dafa nekk journée bu am solo ci Djeddah Thiaroye Kaw parce que tey la ñu réceptionné matériel bi ñuy équipé suñu salle de sport bi nekk fii xam naa El Hadj Ball dina kontaan parce que matériel boobu noonu lu ëpp 30 def nañ ko ci te incha allah population wu Pikine ñoo ko moom parce que dama ne du sax jënd caare ko si waaye Pikine yëpp xet nañ ci loolu nag mooy suñu yitte ci yéen mooy suñu yéene si yéen instant bi mënu ma wax lu bëri parce que ñu ma ko waxee léegi waxtu bi tàcc nañu mais ñi ngi leen di jégalu waat xaar bu yàgg vraiment li ci bëggoon rek mooy jotaay bi taaru mooy ñun ñëpp ñu dajaloo mu nekk cérémonie boo xamante ni si ñun ñëpp dañ koy àddandoo xam naa dinañ souffrir tuuti président Omar ñu lu xëy na deux ou trois orateurs euh, am na ñoo leen choisir ñoo président zone yi xam naa bu ñàkk waa bokk xalaat xam naa duñ si ñàkk seen kàddu ak kenn koo xam ne dafay représenté ASC yi xam leen ni daal Djiddah Thiaroye Kaw moom lañu ñu am Pikine la am au-delà de cette subvention ponctuelle ASC yi nga xam ne ñu ngi qualifié au niveau du département wala ñuy qualifié au niveau régional xam nañ ko suñu loxo du jug si ñoom parce que bu ñuy dem drapeau ji de Thiaroye Kaw la ñuy yóbbu te loolu musul dakk avant ñuy nekk maire kon bu ñu nekkee maire du dakk subvention bi bi ñu ñëwee dañ ko doublé te incha allah dañuy bëgg muy fulu at mu ne ñu yokk ci loo xam ne ASC yi dinañ yëg ni bàyyi nañ leen xel fulaal nañ nañ leen parce que nag ASC dafa nekk ay ay pépinière dafa nekk ay bërëb yoo xam ne dañ fay tàggat xale yi mais di leen yar moo tax ñu bëgg yéen tamit ngeen nekk vecteur de développement am nañu projet pour ASC bu nekk ñu équipé ko benn Jakarta profité aussi di wax ne Jakarta yooyu dina ànd ak casque parce que ñu ngi def ay ravage man mii di wax ak ngeen victime laa ci loolu barki démb rek laa am sama jabar bu def accident si Jakarta ba yàlla def di gën ci moom kon loolu dañ koy def pour ASC yi nekk ay vecteurs de développement ñu xool ci seen biir ndaw loo xam ne yàgg na ci ASC bi di ci yëngatu te xëy na yàlla dogalul loxo mën a jot ginnaawam ñu jox ko ci pour muy liggéey di verser ASC bi ba keroog njëgu jakarta bi di mat moom bu moom jakarta am ase bi jënd beneen jakarta loolu lañ ko bëgg a defee buñ ko defee balaa ren di déwén dina bëri ay ndaw yoo xamante ni si dina ñu ngi santaat ñëpp ñu ngi gërëmaat ñëpp di jégaluwaat kàddu yi gis naa ñëpp nag dama mënul tudd benn benn rek ndax kon jotaay bi mu def waaye sama xol sedd na. am na ñëpp si ñëpp jërëjëf.